si ndigal ak kilifteefuk xalif général des mourides mun Mountakha Bassirou yàlla fi yàgg lool te ànd ak wér daayira Tazawudu Subaan ñooy màggal seen fanweeri at fanweeri ati liggéeyal lislaam fanweeri ati xidma si yoonu murid di nuyu ñëpp di jiital ci nuyoo bi Serigne Ibrahima Mbacke mu Serigne Cheikh Faati Fall ak soxna Mariam mu Serigne Abdou Khoudous mi nga xam ne mi ngi teew ci jotaay bi ñu ngi koy nuyu bu baax di ko jox wàcc waayam waaye di nuyu itam sëriñ Xalil Mbàkke mu sëriñ Cheikh Assou Faye ñu ngi koy ziyaare bu baax a baax moom it di ko jox wàccuwaayam xanaa rek di présenté ñi nga xam ne ñoom lañ nar a seqal jotaay bi tey incha allah di tàmbale ci sëriñ abdu Aziz Seck mi nga xam ne moo nekk nii sama ndeyjoor moom nag mi ngi nekk responsable guichet financement des entreprises fële ci 3FPT 3FPT nag di tekki fonds de financement de la formation professionnelle et technique moom Serigne Abdou Aziz mi ngi nekk pro professeur en construction moom itam ingénieur la de la formation incha allah dinañ ànd ak moom ci waxtaan wi tey mu indi ñu lépp loo xam ne si moo jëm ci 3FPT waaye balaa boobu incha allah Serigne Sonia bu Diop dina fi jël kàddu moom nag mi ngi nekk spécialist en finance islamique di islamologue jiite kuréel gi nga xam ne moo tudd Mouride Academy moom it sëriñ son bu di ku ràññeeku ci mbokk taalibe yi ñu koy ziar bu baax keneen ki ci topp di sëriñ Abdou Khadr Ba Majalis mi nga xam ne moo jiite commission communication digitale bu complexe Cheikh Ahmadou bi nga xam ne mooy université bu Touba bi di chercheur ci Majalis waaye itam di chargé du pôle digital et interculturel bu Tumbuktu institute nga xam ne foofu la foofu la yëngu sëriñ Jili ba ñu ngi lay ziar waaye itam dinañ ànd itam ak sëriñ Xaadim moom du ku ñuy présenté ci jotaay bi ndax ci mbooloo mi la bokk wax dëgg yàlla di ci di ku ci ràññeeku moom jàngalekat la ba pare jiite commission yar ak xamle fii ci daayira Tazawudu Chubaan mi ngi dend ak Serigne May Dieng mi nga xam ne mooy secrétaire général daara ji toog fii toogaayu jëwrin incha allah dina jël kàddu jëwrin bu ñuy tëj kon ñu fàttali ne forom bii mi ngi jëm ci thème thème bi nga xam ne moom lañ tànnoon muy formation professionnelle ak jumtukaay yi nga xam ne moom lañ mën a am ngir. financement bi nga xam ne moo ci jëm ngir financer formation professionnelle bi. di tàmbulee nuyoo yi ak ziar yi ci mbooloo mi nga xam ni ñooy amal jataay bi di Tazawudu Chubaan di jaar ci jëwriñu mbooloo mi sëñ Boubacar ngir yàggale suñu nuyoo ci mboolem membre bu ci bu ci bokk ak ci mboolem taalibe yi nga xam ne mbokk taalibe yi nga xam ne ñoo ñoo teew ci jataay bi di sant bu baax. Tazawudu Shubaan mel na ni sax bu ñu leen nuyu woon ñoom rek te yam ci mu mu yàggale ko ci mbooloo ci mbooloo mi yëpp ndax moom daa bokk ci daayira yi nga xam ne daa mel ni dañoo dañoo xaw a génn cadre daayira waaye nag mujj doon plateforme de change pour murid yëpp mu mel ni nag temu jataay bii la formation professionnelle lañ koy wax et ses modes de financement formation professionnelle nag xam naa man moom du ma damay def contribution bu ndaw rek jox mbokk yi ñu ñu ñu ñu ñu yeggale xam naa poser leen débat bi rek fekkee ne mën naa mën naa mën naa mën nañ ko tuddee noonu incha allah formation professionnelle deme na ñaari baat ñoo ko composé yoo xam ni euh, lu am cëslaay la ci yoon wi ñu nekk yoonu yoonu murit ndax formation buñ ko delloo mën naa dell mën nañ koo delloo ba delloo ko ci xam-xam professionnel ji mën naa dellu ba dellu ci liggéey muy kon jàng ak liggéey wala xam ak jëfe ci baat bi ñu ko gën a miine ci yoon wi xam ak jëfe li nga xam loolu rek la mooy jàngal nit ki métier jàngal ko bu noppee am métier loolu nag doon loo xam ni waxtaane ko ci ab taalibe wala ci ay taalibe lu jàpp naa ne lu ama am solo la ndax yoon wi ci loolu la samp ci jàng ak ci liggéey xam jëfe loolu def naa baat yu ay slogan yu siiw la ci ci yoonu murit yoo xam ne itam boo ko gënee yaatal dangay dem ba delloo ko ci lislaam ci boppam ci loolu kese kese la tënku jàng ak liggéey àdduna lelu kese lañ fiy def xam jëfe rek moo fi moo fi nekk ci lu am solo loolu sëriñ bi wax na ko ci fu baree baree baree bari lu xawa a niiru loolu bokk al ilmu wal amalu jawharaani li xayra yi daarayni yajlubaani def naa noonu la ko wala lu ko niru mooy jàng ak jëfe day mel ne ay ay wurus buñ ko mënoon a wooyee noonu maanaam ñaari mbir yu yu am maanaa yu am important yoo xam ne itam texeeg àdduna ak ñoo ci gën a gaaw ci jox ko nit jàng ak jëfe kon jàng rek rek doyut waaye jëfe kese kese bu tegewul ci xam-xam doyut loolu am ngeen mën nañ ci am exemple yu baree baree bari xëy na guddal gi lañ ci lañ ciy bañ waaye lan la ñuy jàng ak lan la ñuy jëfe loolu tamit lu amaam lu mat a taxaw la ci ab taalibe ndax ñenn ñu nekk la ñuy jàng ak a jëfe mooy daa am fu ñu koy delloo ak fu ñu koy teg taalibe bi nag lan moo yell ci moom mu jàng ko ak lan moo yell ci moom mu jëfe ko loolu itam ab laaj la bu war a samp waaye li nga xam ne mooy gàttal gi daal mooy bu dee ci diine ngay dellu jàng ak jëfe mënoo ko faa génne bu dee ci àdduna itam jàng ak jëfe ko faa mënoo ko faa génne te ñaar yëpp itam ñoo bokk nu ñuy manifesté woo bu dee ci diine dara ay théorie yi ngay jàng boo noppee jëm koo jëm koo jëf mu amal la njariñ boo yemee ci théorie yi kese kese du am benn njariñ booy jëf ci diine te xamoo li nga jëf fu mu tege itam njariñ li du bari même bu ko dee am bu ngeen xoolee ci seen ci tasawdu sixaar sëriñ baa nga fay misaal nett li waxi imaamul Awfi di naarub gànnaar bu yàggoon doon wax ne kii julli sax te di ko jullee niñ ko war a jullee waaye xàmmeewu ci lu ci farataak lu ciy sunna mooy jàngu ko rek da ko dafa gis nit ñi mu julli nee na kooku julli ga dara du ko ci am borom xam-xam yi nag nuancé nañ ci loolu nee mën na ci am sax dara waaye du bari sëriñ bi ci boppam nag wax waxi boppam ne moom daal ak lu mën a xew mu kàllaf mu ne moom jaaduwut muy jëf jënn jëf te xamut lan la ci sharia wax ci jëf jooju moo xam loolu nag jëfi àdduna ak jëfi diine ci yam ndax lu luy dellu ci diine mooy jaamu yi ak lu li nga xam ne mbiri àdduna kese la itam l'islam bàyyiwu ko rek mu libre lu neex waay def encadré na ko tegal ko ay règles yoo xam ne bala nga cay def dara war ngaa xam jëf ji ban taxawaay la ci lislaam di amee boo ñëwee ci àdduna tamit même sos boo fi boo fi jàngul defe naa ni ñu ñëpp xam nañ ko li tax ñu wax formation professionnelle mooy loolu ñàkk a jàng ba noppi moom di yëngu jafe na fi sax moom far wala bu yëngu yi dina néew lum lay apporter ci njariñ loolu mooy exactement li am ci diine boo ci jàngut boo ci jëf itam jëf ji mën naa néew njariñ ndax da dul xam fu mu tege waaye àdduna itam bu fi nit ki bëggee yëngu yëngu bu ko amal njariñ dëgg ñaare bu jàngut yëngu nga mën na mën naa bañ a bari njariñ bu ci tawféex lool amut te bu ci tawféex amee itam dina gis ne njariñ li mënoon naa gën a bari bu fekkoon ne tege na ci xam-xam li muy yëngu loola moom defe naa soxla wut sax ay exemple exemple di ci am waaye nag moo xam kon day da gis ne moo xam ci diina la moo xam ci àdduna la nit ki lim ci war a def mooy di gëstu di jéem a xam ak di jéem a jëfe lim xam waaye li ci am solo foofu mooy lan lañ ciy prioriser ci ñaar yi ñaar yëpp am solo ñaar yëpp am importance waaye lan la ñu jiital bon am na ñoo xam ne xam-xamu àdduna bi certes moo gën a ñor moom la ñuy njëkk a jàngi buñ noppee luñ ci teg teg ko ci am ñoo xam ne contraire bi la am ñoo xam ne sax ci benn rek la ñuy yem ñoo xam ne xam-xamu la ñuy jàng rek di ko jëfe yem ci loolu am ñoo xam ne itam xam àdduna kese la ñuy jàng di ko jëfe yem ci loolu am ñoo xam dañ leen di boole defe naa nag werante du am ci ne boole gay gën moom ñaar duñ ci ñaar duñ ci wuute waaye bu buñ leen mënta boole sax am na boo xam ne moom ñàkk na jariñ lool xam-xam àdduna kese jàng ko di ko jëfee bàyyi sa diine man ngaa am njariñu àdduna waaye njariñu àllaaxira comme ni ko sëñ bi waxee woon ne ñaari mbir lañ yoo xam ne dañuy xëcc ci yiwi àdduna ak yiwi àllaaxira su boobaa yow moom dina am bu la manqué ndax man mala boog boo farlu dëgg-dëgg dina am bu la manqué jàng àdduna kese yam ci mën nga am àdduna lool waaye boo farlu dëgg di nga ñàkk geneen kër ga ca des jàng diine kese yam ci tamit boo jàmbaariwul wala nga am tawféex mën ngaa am alaaxira lool waaye nag boo farlu dëgg itam ci àdduna dina am la fi manqué waaye boo leen boolee nag am nga chance lool pour sa ñaari kër yëpp jàkk kon day mel ne maanaam mi sëñ bi di wax sax mën ngaa jàpp ne kon ñaar yëpp la ci jublu kon tey loola mën nañ ko gën a gis ci mu gën a leer mooy jàng àdduna ba xam ko di ko jëfe jàng sa diine lool itam ba xam ko di ko jëfe waaye bu ñu delloo ci comme ni ma ko waxee noonu bu ci ëpp maanaa bu ci ëpp njariñ ci ab jullit moom amut sikk ci ne bu munta boole ñaar yi mu jàng diineem te xam ko lool moo ci gën bu leen mënee boole nag mooy li idéal te loolu jàpp nañ ne itam Cheikh Ahmadou Bamba xaadimul rasul loolu ci la woo taalibe yépp mooy boole ñaar yi boole gu wér ndax moom ci ay téeréem yu bare bari dañuy wax naan ñu nit ki moom bu juddoo di nit rek bu xasee bay tàmbulee doon mu kàllaf li njëkk a war ci moom mooy mu jàng diineem ba xam ko di ko jafe jàng ko jàng ñett ñetti parti yi nekk ci diine yépp itam ba maîtriser ko mooy ni mu koy waxee awalu waajibin ala al muridi taxsilu zaadihi min at tawxiidi li njëkk a war ci ab taalibe bu mu mën a doon mooy mu fexe ba tawxiidam mu defar ko ba mu set wecc rafet am tawxiid ju sell bu ci jógee nee na lum ci mën a teg ci fiq mu teg ko ci lu mu ci mën a teg ci fiq mu teg ko ci bu ci jógee lu mu ci mën a teg ci tasawuf muy ixsaan mu teg ko ci su ci jógee nag bu bëggee soobu mu soobu wa baadahu yasluku in raamal wusul ala yaday mu ala yadi shaykhin murabbin yaqfu rasul wala ni mu ko waxee mooy bu bëggee soobu daal mu soobu te ànd ak ku mat ab sëriñ mu gide ko mu gide ko waaye moom balaa moo nekk di sooboo ko dox doxinu gaañi sax na farlu na farlu defar pas defar ak defar tawxiidam ba mu set mu defar fiqam defar tasawufam su jógee ci loolu waxaat na ko ci yeneen téere bu jógee ci loolu mu jàng jumtukaay yi jumtukaay yi nag mooy li ko yombalal liggéeyub àdduna mooy xam-xamu àdduna kon la mën nga cee jublu yooyu ndax maa ngi fay lim lu mel ne grammaire ci naxwu booba maa ngi fay lim ay logique te mooy dugg ci mantiq ma ngi fay lim yu bare bare yoo xam ne dina yombal nit ki mu dégg diineem lool waaye dina ko leeral am xelam ci àdduna itam waaw te loolu sëñ bi kon dangay gis ne limal na la xam-xam yi nga war a ni nga leen war a tege sax par priorité day mel ne boo ko seetloo dëgg loolu la lay loolu la lay jox ki nga xam ne nag moo am loolu lépp jàng ba xam kooku moom même suñ boroom subhaanahu wa taala day wax ni en tout cas dina koy dugal bu baree bari ci biir alxuraan ci foo xam ne sax léeg-léeg day tudd turam tudd malaaka yi rek teg ko fa teg fa borom xam-xam yi borom xam-xam yi ci sens bi mu gën a yaatoo nag lay wax ndax mi ngi wax ci surtout Ali Imran naan yàlla mi ngi day seede ne moom amut benn yàlla bu moom moom ak malaayka yi ak borom xam-xam yi ñooy seede loolu. loolu nag borom xam-xam bi ko ci waxee mooy ñooy ñoom ñooy gën loola da leen gën a jige xam dëgg dëgg yàlla da leen a gën a jege ndax moom ci boppam sax day wax ne jaamoo ko te xamoo ko mënut a nekk liñ daan wax léegi ci at ci àdduna xam-xamu àdduna jàng ko. te jëfe ko yàlla moom day wax ne sax jëf ji bu fekkee ne ànd xam-xam du mën a nekk ndax mooy wax ne xam leen ma balaa ngeen may jàmm parce que bu ngeen ma xamut du ngeen ma du ngeen ma mën a jaam àdduna itam lu mel noonu lu mel noonu moo ci moo ci amaat bu ko defee loola li may wax nii lépp ci li sëñ bi di bind ci téere yi dangay gis ne mi ngi ñuy tegal xam-xam yi par catégorie ak selon itam priorité ni nga xam ne noonu lañ ne noonu lañ gën a nekkantee priorité bi mu ci loolu itam yemut ci bind ko rek ñu koy gis waaye dañoo gisoon ne ba muy ci ak nekkam moom dafa ñaaxoon taalibe yi lool ci liggéey bu wér a wér liggéey loolu yoonu murit ba léegi nii loola moo leen topp ku leen xam xam ni takku ci liggéey amuñ ci ndent loolu itam ci sëñ bi la tàmbalee woon ci ak nekkam loola siiw na ñuy nett li ñoo xam ne ci wàllu mbay nii ku mel ne borom daarul yi nga xam ne mooy maam yi ñi ñu fi tudd léegi bi ci nekkuk sëñ bi bi ne wax nañ ne tolloon nañ jamono yu crise bu mettee woon lool ba nit ñi prisonniers yi nekkoon ay ci dëkk yi di faatu bu baax a baax fii ci Sénégal Louga ka fa teewaloon ka fa nekkaloon tubaab bi mu eggoon na ci bind ko lettre di ko lepp luñ mën a dundale ñooñu ndax faatu gi dafa ëppoon ci ak ci ci ci ak ci ci ci ci di ko leb ci dugub loo xam ne dañ koy mën a dundale ñooñu ndax li daan li mu daan bay ci quantité bu toll noonu nga xam ne dëkkam bii ñuy wax Daaru Muxti am na gëstukat yi wax ne lépp ay tool la woon te génn te tool yi ëppoon na li ñuy woowee Daaru Muxti tey loolu xam nga ne ku ko bay kooku kenn dàqulaa liggéey kenn dàqulaa yëngu nga xam ni borom daarul bi mu ko ko joxee mu koy laaj ñaata la ko ko lebale tubaab bi di ko laaj loolu ka fa nekkaloon tubaab bi da koo xamal ne ko moom leblante wut ak ñoom moom ki muy leblanteel mooy yàlla mi am ak fay te ku muy fay tamit doo doo du moom bu lay fay da fay lu ëpp lam la leboon pour wax la ne la kooku e, yeggoon nañ kon ñi sëriñ bi defaraloon boppam yeggoon nañ ci ku jaaxle ci réew mi ci wàllu yëngu ci wàllu sa liggéey ci ñoom ngay dellu sëñ bi ci boppam ab delluwaay la woon ci côté yooyu bari na yu amoon ci ay jafe-jafe te ñeen ngeen gën ñu koo xam fopp dañ daan dellu si ci moom ngir mu résoudre leen problème yooyu te li ko li ko ko yombalaloon te wala boog liñ xamoon ci moom mooy xam ne mbooloo mi nekk ci gannaawam ñëpp jàng ak liggéey rek la leen di loo kon jàpp naa ne kuy waxtaanee formation professionnelle di ko wax ci biir ay taalibe loolu moom mooy li nga xam ne yaa ngi delloo battu ba ca daal noonu lañ koy waxee defe na bu ko defee xam-xam comme ni ma ko waxee sànq itam ba léegi ñaari xam-xam yi jàng ko léeg-léeg li ci nax nit ñi mooy dañoo defe ne dañoo antinomique cest à nit ki bu njëkkee jàng diineem njàngum maneen ma da koy raw bu njëkkee jàng maneen maneen njàng mi tam diinam da koy raw loolu defe naa ne murid yi moom ñu ngi ciy commencé dog aw yoon ci wane ne dëggantaan mbir mi demewut noonu ñaari jàng yi sori nañ sax di nekk lu antinomique waaye dañoo complementaire far boo rawati na nag diine ji comme ni ko sëñ bu waxee njëkke ko di ko njëkke loolu seetlu nañ ne ñi koy njëkke seen xel dafa mel ni ak ubbiku moom lay gën a yomb ci yeneen xam-xam yi ci des yëpp dañ pour ñu eh, pour ñu pour ñu pour ñu pour ñu maîtriser ko da leen di gën a yomb buñ ko jéemee am na nag ñoo xam ne jéemante wuñ ko ci waaye am nañ ci exemple yu bare bare mën nañ ci lim exemple Sëriñ Abdou Khadir mi nga xam ñu ngi euh, seqal jataay bi ku ne xam na ne donga daara la waaye ci geneen wàllu gi itam man ko ci jafe na di nuyu itam Sëriñ Abdou Aziz Sëriñ Abdou Aziz Seck mi ñu bokkal jataay bi di nuyu ñëpp loolu lañ fàtte woon la ñu njëkkee kon loolu ay exemple la boo génnee itam da ngay gis ne ci wàll yëpp ay taalibe yoo xam ne dañuy jàngi alxuraan ba mokkal ko bind ay kaamil ni ko ñu ko daan defee di ko yóbbu fañ ko daan yóbbu jàng xam dem ci yeneen domaines yi jàngi ko tey da nga ciy gis ay ay ñoo xam ne dañuy spécialisé wu ci ci ci ci génie civil ñoo xam ne ci génie mécanique ñoo xam ne ay scientifique lañ ñoo xam ne ay littéraire lañ ñoo xam ne ay médecins sax da nga ko ci gis tey ñoo xam ne dañoo jàng ba mokkal def bind seen i bu ñu la waxut ne la def nañ loolu doo ko doo ko doo ko doo ko gëm te li ñuy xam lépp ñu xam ko loolu laa wax ni taalibe yi ñu ngi ciy dogu yoon waaye nag ay exemple yu ñu war a yu ñu war a yu ñu war di yokka euh, di ko reproduire bu baax a baax ndax réew mii xëy na ku ko bëgg a def lu mel noonu itam faaw yaa koy defal sa bopp ndax jafe na fi ndax école bi bu fekkee ne c'est une école laïque euh, dina fi jafe waaye am na ay am na ay ay ay ay méthodes yoo xam ne nit ñaa ngi ciy jaar rawat na en tout cas taalibe murid yi jeunes yi surtout léegi nga xam ne même ñi ci sax njàng mooma mujj nañ dabaatal ko léegi boo seetloo daayira yi rôle boobu mu la ñuy xaw a joué ci ci dëkk ca sax ci dëkk ci dëkki taax yi fexe ba ñi njëkkee wutoon njàng moomu te jox bopp sëriñ bi ñu ñu fexe ba dugal ci ñoom xam-xamu diine bu wér ñu boole ko ndax da leen di gën a yombalal da leen di da leen di niital rek niital la leen seen àdduna comme ni ko sëñ bu waxee xam-xam munta neutre day jariñ baa mu lor fal ilmu in lam yufdi shaxsan lil huda fa innahu yajurruhu ila rada neutralité amut ci xam-xam bu la bu la jubalut rek lor la waaw kon defe naa nag dogu yoon wi maa ngi doon wax ne jeunes yi ak seen i effort personnel waaye mel na ne mbooloo mi sax en général ndax ñu ngi wax tey complexe bu Serigne Abdou Aziz Mbaye nekk université Touba te lu wér ba wér mooy dinañ offre de formation bi moom dina dina dina dina am particularité boobu dina sukkandiku ci diine waaye dina yaatal domaine àddina yëpp waaye lépp mu dëppale ko ak valeur yi diine yi ndax li li am problème ci xam-xamu àdduna te ñu ko ci daan ragal njàngum tubaab wala njàng moom mën a doon en général mooy lor gi rek waaye bu ñu wóoree ne lépp dafa dëppook valeur yi àdduna yi valeur diine yi loola ku ne xam na ne mënut a lor waaye jariñ rek lay def xam naa kon offre dafa offre boobu ñu doon wax sax ak yi ci aju incha allah ak université boobu sëñ Abdou Aziz dina ci gën a ñëw ci jaatal moo tax loolu moom lañ koy bàyyee incha allah bu ko defee li ci des sëñ Abdou Aziz dinañu wax xëy na les modes de yi comme ni ko waxee. waaye daal ñu xam ne formation professionnelle waxtaane ko ci ay taalibe moom loolu jàpp naa ne delloo bàttu ba ca ndaana la ñuy ñaan rek lépp doon njariñ te itam duñ fi déggee doon loo xam ne dinañu man a yombalal jëf ji incha allah te taalibe itam fu ñu mën a nekk di ay ay royuwaay di ay di ay exemple ci yëpp ci ci ci moo xam ci àdduna ji moo xam ci diina ji loolu yàlla ñu ko yàlla tawféexale incha allah wa ma dalika ala llahi bi aziz wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. waaleykum salaam Serigne Souhaïbou ñoo ngi lay sant bu baax a baax ci intervention bi pertinence bi waaye itam ni nga ko tënkee ci ci temps bi nga xam ne moom lañ la joxoon loolu itam nekk lu ama am solo euh, ci say wax dégg nañ ci bu baax accent bi nga xam ne def nga ko ci xam ak jëfe euh, leeral nga ko bu baax ci njàngaleem sëñ bi ni ko sëñ bi indee ak ni mu ko diglee loolu nekk lu ama am solo waaye itam fàttali nga ñu ab jullit lan la war a jàng lan la war a xam wala boog lan la war a njëkk a xam leeral nga itam ci lan la war wala lan la warta ñàkk a xam loolu itam dégg nañ ko bu baax ci say wax euh, indi nga tamit ay leeral yu am solo ci liggéey taxawaay bi mu am ci yoonu murit nekk loo xam ne lu mat di fàttali la ngir mbokk taal bi di ko bàyyi di ko bàyyi xel bu baax leeral nga itam complémentarité bi am ci njàngum xam-xamu diine ak jàng xam-xamu àdduna ba leeral nga ci yoonu murit liggéey bu am solo biñ ci def ci jéem a wëlbati tendance bi nga xam ne moo amoon wala moo moo gën a yaatu ci réew mi ci ne nit kii jàpp nañ ne xam-xam àdduna rek la la war a gën a jàng joxe ci exemple euh, Serigne Djily Ba waaye mënoon nga ci joxe exemple sa bopp itam comme niñ la présenté sànq xam ne ab dongab daara nga boo xam ne teewul après bi nga paree ci bi nga defee li ñëpp donga daara yëpp di def mooy jàng bind kaamil jàngi xam-xam da ngaa ñëwaat jàngaat xam-xam àdduna ba tey jii wax dëgg yàlla ñu gis ne yaa ngi ciy def liggéey yu am am solo euh, kon dañuy daal di jàll rek njëkkanteek waxtu wi ci sëñ Abdou Aziz Seck euh, ñu ngi may signalé ne borom Ford 37 euh, 30 bu mënee dem déplacé otom ki nga xam moom Ford 37 30 bu ko bu mënee déplacé otom fi mu ko gaaree fi ko gaaree bi jàppandiwul kon sëñ Abdou Aziz moom lañuy nara jox kàddu gi ngir mu leeral ñu 3FPT ñoom ban taxawaay la ñuy am. ci formation professionnelle yi nga xam ne ndaw ñi ñu ngi ciy jéem a yëngu ci ànd ak ñoom jàppale leen ci financement bi nga xam ne si dañ ko yittewoo bu baax a baax ñoom nag ñuy kuréel goo xam ne wax dëgg yàlla ñu ngi leen di sant ci seen taxawaay ak seen seen seen liggéey ndax ñu ngi def liggéey bu am am solo ci réew mi ci li nga xam ne ñoom accompagnement bi nga xam ne ñu ngi koy def mbooleem ndaw ñi nga xam ne dañoo bëgg a jàng waaye itam ci formation professionnel ak technique comme ni nga ko ni ko ni ko tur waxee kon sëñ Abdou Aziz ñu ngi lay jox kàddu gi ziar euh, sëñ Mouhamadou Nazir Touré modérateur di remercier ko si kàddu gi ma jox euh, di nuyu mbooloom euh, daayira waa daayira Tazawud Choubane bi ñuy jox opportunité tey jii fii ñu ñëw partager suñu structure le fonds de financement de la formation professionnelle donc di commencer nuyoo bi ci président bi di jëriñ bi sëñ Babacar Diop. di euh, euh, bañ fàtte tamit sëñ Moustapha bi nga xam te ne mooy suñu point de contact moom moo ñu euh, dox suñu diggante ak daayira bi yombal daje bi tey ak trafic donc du nuyu tamit ñi ma bokkal plateau bi sëñ Babacar sëñ Abdou Khadr Ba ak sëñ Cheikh bu Diop di wax mbooloo mi ni 3FPT le fonds de financement de la formation professionnelle et technique Euh, fonds la bu état du Sénégal samp 2004 euh, 2004 la jël décret créer le fonds de financement de la formation professionnelle et technique muy structure de financement de la formation professionnelle et technique li sabab nag samp boobu mooy euh, état du Sénégal depuis quelque temps dafa dérouler benn réforme ci système de formation professionnelle technique boo xam te ni daanaka mi ngi commencé 2000. 2002 parce que document stratégique d'orientation bi c'est en février 2002 nañ ko validé mu jéem mu bëgg changé complètement ni nga xam ne état bi moom da doon doxale ci euh, dérouler le programme de formation professionnelle et technique des acteurs ndax su ñu nee formation professionnelle et technique dafa jël en charge toute la demande de formation professionnelle demande bi nag ñan ñoo nekk ci biir sooy seet mën nañu ni ñi nga xam ni soo koy seet suñ ko doon natt ci ay at ñi ngi am fukki at ak juróom benn 16 ans ba 59 ans ndax ñooñu nañuy wax ñoom ñoo constituer la population active ñoom nañu jàpp ni suñu xëyee suba teel soit dañuy xëy dem wuti liggéey nekk seen place di liggéey wala nga xam ni dañuy xëy dem di wuti xam-xam boo xam ni dañuy liñ ci jublu mooy am métier pour mën exercer wu su dee ay ndaw nañ mooy population active bi bañ ko xayma en deux mille en deux mille treize ci réforme euh, recensement bi de defoon ñu ngi ko xayma ci six millions huit cent mille personnes donc actuellement egg na ci sept millions et quelques personnes sénégalais yoo xam ni ñoo nekk population active boobu nekk ci activité di xëy li tax mu concerné leen mooy que activité boo mënti def su dee ba nga ciy dugg da nga jàng ba am métier bi. soo toogee ñaari at rek dina am ay soppike ay soppite yoo xam ne dina am ci activité ba nga xam te ni da ngay laajaat mise à jour man suñ koy suñ koy natt sax ci ci ci suñu portable yi da ngay jënd portable bu bees toog tuuti ñu ne la il faut mettre à mise à jour pour mën a gën a adapté wu par rapport ak contexte bi parce que toujours affaire yi day évoluer exigence bi day exigence euh, marché bi day gën a day gën a tar ay mutation di am tey jii par exemple ni ñu doon wootee téléphone ak ni ñu doon woote téléphone avant y a des différences te chaque jour mu am affaire yu bees yoo xam ni képp koo xam te yaa ngi liggéey ak foo mënta liggéey da nga war a yeesalaat gën a adapté wu par rapport ak li ngay produire moo tax formation bi kuy liggéey ak ku liggéeyul ñëpp tout le temps da nga war a di formé wu loolu mañ naan formation tout le long de la vie muy benn pàcc beneen bi tamit mooy euh, loo mënti liggéey léegi sëñ Soy boo waxoon na ko avant ngay liggéey lu mënti doon wala ngay produire lu mënti doon li li gën a wóor mooy nga jàng mën ko jàng ko xam am xam-xam bi parce que am na sax métier yoo xam te dañ ko encadré du n'importe kii moom moo war a dugg ci biir métier bi produire liggéey mettre sur le marché loolu nag am suñu dëkk yi nekkul loo xam ni sax am nañ ci benn exigence mais soo jëlee par exemple yenn dëkk yi je pense je prends l'exemple du Canada da ngay gis ku jàng am doctorat fii médecine wala nga dem sax France am sa doctorat médecine exercer wu dem Canada ñu ne la doo exercer parce que euh, médecine bi au Canada c'est encadré n'importe qui du ci dugg di exercer wu. loolu nag fa nañ jëm parce que plus ñuy gën a dem plus ñuy gis gis ni euh, profession yi dañuy organiser wu ba nga xam ni n'importe qui du war a dugg ci benn profession profession. di si exercer wu tant que amoo ay compétence requises comme fa nañ jëm nag il faut que ñu préparer ñëpp moo tax si tête l' état daal di samp cette réforme là réforme bi nag li ko jublu mooy euh, dañu gis ni avant la réforme sooy xool formation professionnelle dafa mel ni comme éducation nationale ay école la yu ñu sampoon ci dëkk yi ñuy former soo xoolee daanaka pour dugg ci école yooyu suñu jëlee écoles yu gën a ndaw comme les CEF le centre de formation professionnelle dañ pour dugg foofu jàng soo amee quatrième wala nga am BFM dugg su dee yenn écoles yu gën a kawe comme ay Sénégal Japon ñu ne il faut avoir le pour dugg ay concours la donc daanaka d'ailleurs sax instant boobu formation professionnelle ci biir éducation nationale la nekkoon amul woon ministère de formation professionnelle donc c'est presque une orientation scolaire du système de formation professionnelle on n'avait pas vu la dimension de la formation professionnelle nga xam te ne li ko yëkkati mooy jël en charge toute la demande formation professionnelle dañ soo xoolee rek yi nga nañu foogoon ni ñooñu la formation formation professionnelle concernée nekk formation professionnelle non seulement concerne na xale yi bëgg métier pour dugg ci marché bi mais ça concerne aussi les travailleurs yi nga xam ne ñi ngi si entreprise salariés yi liggéey parce que tey jii foo mënti nekk soo toogee deux ans gis ni li nga waroon li li nga war a def li ñuy xaar ci yow mënatoo ko parce que affaire yi bougé na concerné na aussi ñi nga xam te ne dañuy wax sax seen place nekk dans le secteur informel ainsi de suite ainsi de suite mécanicien yi da ngay xëy suba teel di réparer di réparer xëy suba teel ñu indi benn oto boo xam te ni da ngay tijji doo ci xam dara parce que électronique bi dugg na même menuiserie métallique d'ici quelque temps vous allez voir ça changer parce digital dugg na kenn dootul sudeeti donc même bay bi aujourd'hui il a l'informatique te dafay changer tey jii photographe bi da nga daan foo dong da daan romb gis ay euh, ay ay euh, ay studio de photo ñi ñi dem taxaw di photo wu mais léegi studio yi départ nañ gisatuñ leen caméra yi changé na ainsi suite te loolu changement yooyu nit ñi dañu leen war a tàggatat daal di remettre en jour seen ay capacité pour ñu mën a exister sinon dañuy disparaître donc changement ak mutation yu gaaw yooyu moo tax ñu ne kon formation bi dootuñu rek rester ci formation des jeunes yi nga xam te ne soxla métier pour dugg ci marché bi dañ koy élargir sur les jeunes sur les adultes sur les travailleurs que ce soit travailleurs indépendants ak travailleurs non indépendants qui qui ak salariés yi mais malgré réforme bi ñu samp jël 3FPT daal di koy indi li tax ñu indi 3FPT mooy dañu gis ni ambition boobu noonu suñ ko sampee. école de formation professionnelle yi nga xam ne dañ ko teg ci ci dëkk yi dëkkaan yi mënuñu jël en charge cette préoccupation la parce que seen budget dafa limité ñi fa nekk peut-être aussi seen xel ibbeekuwul ci ñu mën a ouvrir école yi non seulement ci jën yi mais aussi si mag ñi nga xam te ne dañ ko soxla wala travail yi nga xam ne dañ ko soxla parce que jusqu'à présent soo xoolee école yi ay xale rek ñoo fay dugg di jàng di génn ñu ne kon samp euh, te écoles yi aussi soo xool seen budget c'est très limité ay am na écoles yoo xam ne ay 5 millions de francs nañu am budget annuel profit fa nekk aussi tàggatuñ leen ñu jël en charge toute la demande qui exprime au niveau local ñu ni kon nañuy samp benn instrument de financement qui va accompagner cette orientation mooy 3FPT fonds de financement de la formation professionnelle fonds bi nag ni ko sampe am naa ay prospectus yu ma indaale yoo xam ne dinañ leen ko jox pour ngeen xool structuration fonds bi niñ ko samp par rapport ak la structure de la demande c'est-à-dire am na ay guichet la yoo xam te ni par exemple le guichet de financement des entreprises bien gérées guichet la boo xam ni li nga xam te ni moom lay jël en charge comme financement formation mooy ñi nga xam ni dañuy liggéey nekk ci poste c'est-à-dire salariés yi ak les travailleurs indépendants les travailleurs salariés et les travailleurs indépendants ñoom nañuy tàggat pour ñu gën a yeesalaat seen xam pour gën a mën a taxaw ñu nekk pour mën a produire am na ci ay jéego ñu def mën naa ci revenir rapidement am na guichet de financement des individus boo xam te ni moom laa njëkkoon yor avant may jël guichet de financement des établissements ñooñu moom mooy ñuy joxe bon de formation yi pour ndaw ñi nga xam ne dañoo bëgg métier pour dugg ci marché bi moo xam ñu jóge université la wala ñoo xam te ni am nañ bac bëgg dugg ci métier wala ñoo xam ne am nañ BFM bëgg dugg si ñoo xam ne sax jànguñu wala dugg si métier ñoo xam ne dañoo génn daara bëgg dugg ci métier. donc muy joxe ay bons de formation ak ay programme euh, yu programme yu ci ëpp moom ay programme courte durée nga xam te ne formation bi métier rek la orienté métier maximum sur 6 mois de 3 mois am na ci ay programme yu bëri yoo xam te aussi mën naa leen ko wax ngeen gis ko am na aussi beneen guichet mooy trois guichet financement yi benn guichet boo xam te ni day financer école de formation professionnelle yi te école yi li tax ñu leen di financer mooy dañoo jàpp ni comme ñoom ubbeekuwuñu trop rapport ak réforme bi il faut ñu accompagner leen pour ñu samp ay programmes yu bees yoo xam ne day adopté par rapport à la nouvelle vision euh, donc ay projets de formation yu bees en plus des projet de formation yi nga xam te ni moom nañu doon def moom lañ doon dérouler les projets plastiques donc voilà les trois guichets de financement de de de la de du fpt pour accompagner cette réforme qu'on a mi en place mais euh, suñu reveniraatee sur structure Euh, ñi nga xam te ni dañuy euh, dañuy liggéey dañuy xëy di liggéey comme on peut parler de la main d'œuvre occupée malgré état bi li mu def depuis 2000 nous sommes en 2020 presque 20 ans après c'est vrai que réforme bi deuxième réforme bi peut-être mën nañu wax ne c'est en 2014 avec la mise en place du fonds on est encore loin des résultats ndax soo xoolee ñi nga xam te ne dañuy xëy di liggéey kon appelle la main d'œuvre occupée 60 60 virgule cinq pour cent ça ce sont des chiffres de l'ANSD c'est-à-dire que plus de la moitié mësuñu jàng li nga xam te ni moom la ñuy exercer wala xam te ni suñ ko jàngee tamit dañ ko jàng daal le tas nekkul loo xam ne c'est structuré 60 60 virgule pour cent mësuñu jaar benn école boo xam te ni mën nañ ci teg loo xam te ni dañu xam ne ñii dañoo dañ tàggat avant ñuy ñuy jàng donc pour revenir tuuti ci sëñ bi lu mu waxoon. que ni nit avant ngay def dara da nga ko war a maîtriser mais bëri na ñoo xam te ni ñu ngi exercer ci ay activités yoo xam te ni avant jànguñu chiffre yaa ngi ne 60 pour cent même 30 pour 40 pour cent yi nga xam ne ñoo ci des 40 pour cent yi nga xam ne ñoo des ci ñi nga xam ne dañuy yëngu euh, ANSD nee na 50 pour cent yi passé wuñu école primaire passé wuñu école primaire. donc 50 pour cent yi des ñoom ñoo institut ñoom ñoo def prof parce que su paasuwul ku paasuwul école primaire jàpp nañu ni même su dee jàng nga métier bi ngay def nekkul jàng boo xam te ni dafa egg ci professionnalisation ba nga nekk koo xam te ni da ci xarañ am donc pour vous dire que ni euh, d'accord am na ñoo xam te ni am nañu ci ay écoles yoo xam te ni peut-être c'est pas structuré ah mais permettre na ñu nekk ay véritables professionnels mais au regard de ces gis nañu ni lii tax. ñu ngi constaté ñun ñëpp que ni am na lu des ci li ñuy liggéey lépp loo jënd soo utiliser tuuti mu yàqu wala ah, mënoo ko jaay à l'étranger produits yi ñuy def ci ci secteur yu bëri da nga gis ne dafa am ay ay limites ay insuffisance loolu lenn la waralul ko lu dul parce que dañoo toogul wax waxtaan ci comment nañu mën a professionnaliser les jeunes les professionnels les adultes ñi nga xam te ils sont dans le secteur professionnel donc pour vu dire que ni tey débat euh, thème bi ngeen euh, choisir muy waxtaane la professionnalisation des des travailleurs ceux qui opèrent dans le secteur professionnel ak les jeunes aussi la formation métier c'est capital parce que situation bi quand même c'est limite au regard des résultats je crois que c'est des choses qu'il faut peut-être continuer à promouvoir, faire en sorte que qu'on puisse avancer sur la professionnalisation des acteurs parce que mënuñu wax développement te ñi ñu nekk ñu de véritables professionnels te tey jii am na ay jéego yu état bi teg yoo xam ne mën nañ ci euh, mën nañ ci sukkandiku pour mën avancer et c'est important de le savoir comme tey jii ñuy waxtaanee ci fonds de financement de la formation professionnelle maintenant pour euh, si on revient donc sur le 3FPT waxtaan naa tout à l'heure que ni il les travailleurs wax naa les jeunes les jeunes innovation yi au-delà offre de formation yi nga xam ne école école yi ñu ngi koy joxe soo demee Sénégal Japon soo demee dans tous les établissements de formation professionnelle di nga fa dem am ay offre de formation métier yoo xam te ne existe na ak ay niveau d'entrée il faut avoir BFM il faut avoir le bac il faut avoir euh, ainsi suite mais tey jii niveau da loolu nga xam ne moo fi amoon ba nga xam te ñu bëri dañ leen exclure woon yi jeunes yi laay ñu bëri dañ leen exclure woon ci école yooyu parce que soo ñëwee ñu ne la il faut avoir le BFM te yow daara nga jógee doo mën jàng wala euh, école primaire nga yem doo mën jàng donc doo mën dugg ci école mais dañ comme changement yi am na dañu ne léegi école yi dérouler leen ay programme yoo xam te ne dina permettre quel que soit le statut de la personne mu mën a dugg jàng quel que soit le statut ku jàng ak ku jàngul ku génn daara koo xam te ne am na bac am na BFM ainsi de suite parce que l' objectif mooy ñu bañ ba ñu bàyyi euh, ñu bañ a bàyyi kenn sur la traîne léegi nag écoles yi maaseegul école yaa ngi ci ndànk-ndànk et formation yi aussi dañu ne il faut que mu nekk ay formation courte durée ay formation yoo xam ne formation yu gàtt yoo xam te ni orienté sur des métiers écoles yi nag formation yooyu nag 3FPT moo koy financé parce école yi prévoir wuñ ko woon dans le budget état bi prévoir ko dans le budget il faut ñu am ay ressources yoo xam te ne mooy permettre samp programme yooyu dérouler ko pour mën a toucher tout le monde de plus en plus écoles yi ñu ngi ci tey jii soo jëlee euh, soo jëlee par exemple euh, programme yooyu mën nañu ni ay programme yu bëri la yoo xam te ne si secteur yëpp lay am euh, en mécanique automobile dans le secteur de la menuiserie plomberie installateur de panneaux solaires ay maçonnerie électricité bâtiment diagnostic automobile Euh, système informatique embarqué donc bëri na ay programme soo ay technicien de son opérateur vidéo euh, vendeur qualifié ci secteur boo jël ay assistant travaux ménagers même ñi nga xam te ne sax ay jànk nañ nekk ci biir kër yi am na tey jii benn école boo xam ne mi ngi fii ci Pikine ñu sam fa benn programme boo xam te ni pour képp koo xam ne da nga bëgg nekk qu'on ñu ngi leen wooy ay assistant domestique professionnel nga xam ne avant ngay exercer da koy mën xam ni ngay def programme boobu mu ngi fi te xale yaa ngi fay dugg di jàng donc euh, concepteur de son touristique guidage touristique euh, système solaire maintenance euh, service rapide pour nettoyage yeeg yëpp donc tey ji euh, agent de conduite d'élevage de pour de chair pisciculture carrelage menuiserie bois bëri ay programme man actuellement ñi ngi ci ñi ñu forme déjà ci programme yi nga xam te ne maximum 6 mois la ci école publique comme école privée yi ba toll na ci à peu cinq mille jeunes kon a formé l'année dernière 2019 2018 ak 2019 donc et ce programme là continue de à Touba partout loolu jeunes yëpp la concerné am na aussi yeneen programme yoo xam te ni dañ ko ciblé ci yenn statut yi comme par exemple les sortants des am na ay programmes yoo xam te ni c'est spécialement orienté pour ces jeunes parce que programme la yoo xam ne day intégrer aussi ay alphabétisation ainsi de suite yooyu aussi ñu ngi koy dérouler ci pas mal de programmes euh, à donc euh, dans certains établissements au centre te ces programmes yoo xam ne day continuer cette année particulièrement même xale yi nekkoon sax ci biir prison yi nga xam te ni dañu nekk en bout de peine war a génn am na aussi ay programmes yoo xam ne dañ leen ko orienté ça veut dire que aujourd'hui important que information boobu ñu xam ko pour jeunes yi nga xam te ni dañoo génn université am di chercher amuñu liggéey bëgg professionnel bëgg dugg benn secteur nga mën a xam fan la programme yooyu nekk parce que c'est affiché c'est sur le site nga mën a xool secteur bu la intéressé nga jéem ci dugg parce que c'est des formes am na formation yoo xam ne sax c'est trois mois dina la permettre nga xam benn dugg ci benn secteur mën ci yëngu naturellement am na ay am na aussi ay financement pour ay formation initiale comme par exemple euh, ku am bac bëgg def BTS ku am bag bëgg def licence pour les formation initiales mais euh, li ma bëgg informer mooy pour les à l'endroit des jeunes mooy que de plus en plus dañoo jàpp ni sax dañoo war a wàññi programme euh, programme formation initiale yooyu nga xam ne c'est sur trois ans parce que dañu gis ni c'est long et actuellement les jeunes dañu yàqamti et très nombreux donc moo tax certainement en 2020 l'accent sera orienté sur les programmes courte durée professionnalisantes métiers waaw yaatal ko ba nga xam te ne école boo dem di nga fa am euh, di fa am euh, di di euh, ces formations là donc beneen bi mooy les travailleurs ñi nga xam ne dañuy yëngu ci entreprise yi ñoo xam ay salariés nañ wala sax dañu yor seen liggéey bopp ñooñu am nañ ci ay financement également surtout su ma bon travailleurs yi en général seen financement de jaar ci plan de formation entreprise yi peut-être que on peut revenir su dee am na ñu bëgg leerlu ci loolu mais ñi nga xam ne dañu am seen liggéeyu bopp am seen entreprise bopp peut-être que foofu laay gën a accentuer am nañ ñaari programme yoo xam ni c'est ciblé à ces parce que sooy xool ñu si bëri ils sont dans le secteur informel nga am sa benn entreprise euh, dañu constater ni la plupart du temps li nga xam ne moom mooy problème bi mooy ay problème de gestion ay problème éducation financière comment ouvrir un compte comment gérer ses ressources ak aussi comment respecter les normes de qualité ak euh, développement personnel parce que da ngay gis ñoo xam te ne chaque fois suñu defee suñu exercer benn activité ak benn client client bi leen woowaat ndax dañuy bàyyi ay limites te yooyu yëpp ñàkk xam la euh, donc surtout sur la gestion des normes sécurité qualité ainsi alors on a un programme qu'on appelle Promact boo xam ni dañ ko dañ ko commencé dérouler dans d'ici euh, fin mars tous les personnes yi nga xam te ni dañu yor seen entreprise individuelle di exercer ñoo xam ay maçon nañ ay plumiers ay ay euh, caméraman yaa xam loo mënti doon mën nga ñëw inscrire ci programme boobu ñu former la sur les quatre modules de formation yi nga xam te ni en gestion micro-entreprise euh, norme qualité donc développement personnel ak éducation financière donc c'est des programmes qui sont destinés vraiment aux entreprises individuelles et ce qu'on veut cette année c'est en euh, former au presque 1000 entrepreneurs individuels il y a aussi un autre programme sur le digital pour les ceux qui sont dans les sociétés dans les entreprises artisanales il y a beaucoup d'offres de financement aujourd'hui yoo xam ni euh, pour ceux qui veulent chercher pour exercer un métier wut liggéey ak ñi nga xam te ni ils sont dans leur activité bëgg renforcement de capacité yooyu yëpp c'est des programmes qui qui sont qui sont disponibles et qui peuvent euh, être financés donc euh, ceux qui sont intéressés peuvent s'approcher du du fonds du financement de la formation professionnelle pour en savoir un peu plus sur les modalités donc de de, de prise en charge En tout cas, euh, grosso modo, c'est ce que je voulais partager avec vous. Donc, certainement, dans les questions, on pourra plus préciser. Pour voir les rek y a aujourd'hui une démarche qui consiste à faire en sorte que l'offre de financement soit accessible à tout le monde. Que ce soit ceux qui, ñoo savons, am formation, boo xam ne dañu am ay compétences qui permettent d'exercer un métier, du marché pour les jeunes, ak ñi nga et nous savons, une activité, mise à jour, Euh, renforcer seen activité et puis euh, am ay connaissances qui leur permettent de promouvoir seen activité. kon su ma ñëwaatee ci liñ doon wax mu mel ne rek kon li sëñ Mountakha naal moom raw na université université lenn la benn benn partie la ci complexe bi moo tax complexe bi boo xoolee dafa ko ay parties yu bari am na ci bi ci njëkk mooy fi nga xam ne fi lañuy ñuy xale yi ngir ñu jàng alxuraan bu amee juróom-benni at. mooy kon daaray alxuraan moo ci njëkk daaray alxuraan loolu la njëkk sos bu daaray alxuraan ji jàllee nit nga xam ne it danañ fexe ba nañ daan jàngalee bu njëkk mën naa soppiku nañ daan jàngalee bu njëkk mën naa soppiku ndax léegi mooy am na donc kon nit ki bu daan def juróomi at wala juróom benn at ci daara ji ñaari at ba ñetti at bu ko defee ci daara ji war naa mën a mokkal alxuraan ndax am na ci loo xam ne mën naa soppiku yalwaan mën naa soppiku ci daara jéng mën naa soppi ko ci daara ak yu baree bari yoo xam ne ay moyens la woon yu ñu doon def pour téye xale bi léegi nag ginnaaw dem nañ ba tey booba it daara dafa metti woon daara metti woon na metti goo xam ne daanaka ak dee la léegi nag daanaka li ni donga buy jàng ci daara nga gis ko muy tëdd ci matelas rek loolu <laughs> daanaka ree ree la lay def te léegi waxuma la tëdd ci matelas waaye ay tabax li ñuy dëkk dëkk ci etage ñu di leen wutal ay ravitaillement yu kenn xamut loolu moom jàpp naa ne yow jàng dong lañ la sant loolu ma war naa mën a yomb donc kon daara joo xam ne kon daara ju dëppook jamono lay doon xëy na du du ma ko tuddee modernisation ndax am na yeneen déggin yu ci am léegi waaye ci gàttal daal daara joo xam ne moom dana dëppoo jamono te it danañ garder seen identité ak li nga xam ne moom la sëñ bi bëggoon ci daara ndax bari na loo xam ne dañ koy wax nii di ko théorie amul benn base fu fu mu tegu mooy kuy jàng ci daara normalement dañ laa war a marginaliser wala dañ laa war a sonal loolu dëppoo wutat li am sëriñ Touba ba muy dem ci géej gi dafa bàyyee maam Thierno sëñ Fallou ak sëñ Modou Moustapha ak njaboot gi ne ko na nga fexe ba jàngal leen alxuraan li ñu war a jàng nañ ko xam waaye ci biir njàng mi bunu buun buñ jagam buñ saalañ loolu mooy lan buñ gëj a lekk yàpp seen bopp bu mu cuqaaral buñ tilim donc condition yooyu la joxoon maam Thierno ci ay dongo yu jàng. ñun nag ñu bëgg a gëm ni nit kuy jàng dañ laa war a yeew dañ laa war di euh, maltraité loolu demee wut noonu yooyu it mat nay xam donc boobu mooy bi ci njëkk ñaareel bi ci topp mooy euh, njàngum majalis day am ci complexe majalis bu ñu ko waxee mooy enseignement religieux maanaam li nga xam ne mooy diine mooy diine nit ki bu jàngee alxuraan ba noppi nag alxuraan ji muy jàng war naa xam lan lay firi loolu mooy njàngum majalis ci tënk njàngum majalis moo xam ne day tënku ci njàngale mu dëppook ak njàngalem Serigne Touba loolu da cee am solo ndax dañoo toll ci jamono joo xam ne léegi lu ne nit ñaa ngi koy jàng mi ngi leen di orienté fu ne lu nee ngi xew ñu xam ne nag fettarlu gii xew xay na li gënoon mooy nag nga tënk leen ci fexe ba jàngal leen buñ mokkalee alxuraan ba noppee nga jàngal leen xam-xam njàngum xam-xam moo xam ne day dëppook sunu réew mii nga xam ne mooy li fi sunu mag ñi bàyyi te lépp di diine ak euh, ya ci aju yépp mooy li sëñ Sonia bu Jóob doon tudd léegi te boo demee ci Masaalikul Jinaan sëñ bi leeral ko mooy xam-xam yi gën ci xam-xam yi ak ya ca war a topp yépp loolu mooy njàngu majalis troisième bi mooy euh, ba tey ci biir complex benn formation wala école intermédiaire boo xam ne ñi jàng ba noppi danañ am fu ñu leen dugal former leen fa lu mat at wala ñaari at yoo xam ne dinañ mën a intégrer système bi ñu war a taxawal ci université bi donc kon dafa am yuy jiitu yoo xam ne su amee ba noppi nag nit ki bu fa jógee dana mën a dem ca université ba loolu mooy mbir mi bu loolu noppee it ñi nga xam ne ñi ngi ci biir yoon wi ci Touba ak Ndakaaru fu ci mën di doon am na ay écoles yu fi nekk moo xam arabe lay jàngale moo xam franco arabe lay jàngale boo jëlee misaal école suñ sëñ Cheikh Gaynde Fatma yi école u sëñ ak yu mel ni ñoom ñu bari ñoo xam ne nit ñi ña fay jàngee buñ jàngee ba am bac ba noppi léegi sax alhamdulilah xëy na ñu ngi jéem a intégré wu ci système bi waaye ñu fexe ñoom tamit nuñ leen mën a dugalee foofu waajal leen ba ñoom tamit ñu am fa seen seen seen seen place ci biir université bi moo xam lu luñ bëgg a suivre lu mu fa doon lu ci lu ci nekk rek soo waay tàmbalee gu ma de ah <laughs> donc kon li ma wax nii lépp mooy ngir waajal ñi war a dem ci université bi université bi ñëwagul <laughs> léegi université bi bu ñëwee. mën nañ koo tënk ci ñetti ñetti ñetti ñetti ñetti ñetti ponk ñetti ponk ñetti ponk yoo xam ne manees na ne yooyu ci la ci la ñuy ci la ñuy formé nit ki bi nga xam ne moo ci gën a yitteel xëy na wax naa fi yee ma wax léegi ci wàllu majaalis ak ya ko jiitu waaye xëy na kon ma dugg ci euh, pôle yi rek pôle enseignement supérieur am na ci université bi am na majaalis enseignement am na Euh, tamit euh, jëmmi université bi ci boppam bu fekkee jëmmi université bi ci boppam bari na yu ñu fay jàng ñi am bac arab ñi am bac tubaab fu mu ci mën di doon rek am na ñu leen fa waajalal yoo xam ne fa lañ war a fa lañ war fa lañ war a dugg waaye damay ñëw ci li nga xam ne rek xëy na moo concerné dëgg-dëgg euh, panel bi mooy ay UFR yoo xam ne dafa jëm ci wàllu technologie ak métier yooyu tamit am na fa ñàkkul su ma noppee document bi dinaa ko jox sëñ Moustapha mu fexe ba ñëpp jot ci ci biir UFR boobu nga xam ne moo soxal technologie ak métier mënees na koo tënk ci eh, ñeent wala juróomi tomb ba ca njëkk am na fa département boo xam ne département artisanat la tudd ak beneen département boo xam ne département bâtiment et travaux publics noonu la tudd ak beneen département boo xam ne électromécanique loolu lay jàngale ak beneen boo xam ne tamit informatique et télécommunication lay jàngale bi ci mujj mooy département hautes études euh, commercial donc yooyu yëpp ay département la yoo xam ne prévoir nañ ko ci UFR bi nga xam ne mooy métier ak euh, euh, technologie bi incha allah noonu tamit lay amee ci yeneen façon yi yeneen yeneen xam-xam yi lu mel ne am na UFR boo xam ne dañ koo jagleel science agronomique ak euh, technologie agronomie ak production végétal mooy li ñu naan APV yaakaar naa beneen bi ci topp mooy département élevage production animale moom ci yooyu la yëngu moom tamit mooy li ñu naan EPA defe naa ak e, bi nga xam ne tamit technologie alimentaire ñett yooyu incha allah yi nga xam ne mooy science agronomie ñoom tamit ci lañ jëm e, fenn fu ci nekk tamit waajal nañ espace yi nga xam ne moo fa war a am ñaata kii la war a jël ci misaal amphithéâtre boo xam ne am na 1500 places yu mu war a jël ak e, amphithéâtre boo xam ne 500 places ak yu mel noonu donc daal ci tënk rek mën naa mën naa mën naa mën naa wax boobu yi ci des ma. ginnaaw bi xam naa su ngeen liiree document yi di ngeen ko gis incha allah waaye lu jëm ci wàllu métier ak kii bi daal foofu la moom donc euh, li leneen li ci am solo it mooy jéego yi nga xam ne tàmbale nañ ko ci tàmbale nañ ko cee def nga xam ne boo xoolee jëmmi liggéey bi donte durée bi yàggut waaye yàlla def na ñu ngi ciy avancé bu baax a baax a baax euh, récemment bi nga xamee ne njiitum réew mi ñëw na fa gis na ko kaddu yam ci yëkkati tamit muy lu ñu rafet lool rawatina nag yi nga xam ne wax na ne incha allah fas yéene na cee taxaw kon. Euh, sëñ Abdou foofu lay amee solo par rapport ak yi nga xam ne moom nga proposé woon yaakaar naa ne kon su boobaa dina am yu am solo yoo xam ne waa AFP 3 3 FPT dana ko mën a seq ak li nga xam ne mooy université bi ci wàllu liggéey ak ci wàllu taxawu ñi nga xam ne euh, yàlla def na amaguñ benn benn métier wala boog bëgg nañoo apprendre métier yooyu ba noppi. Euh, ñu def ko tamit ci melokaan woo xam ne anam yoo xam ne anam yu yu yu mucc ayib lay doon anam yoo xam ne it anam yu jàppandi lay doon waaye loolu tamit day am loo xam ne faw jàppandalu état dugg ci euh, ministre bi nga xam ne moo yor formation professionnel ñëw na fa yàlla def na gise naa ki nga xam ne mooy kilifa gi di sëñ Ahmad Badawi leeral na ko ko bu baax a baax ba nga xam ne mën na si na ne prise de contact yi njëkk am nañ ko ak moom ñuy am yaakaar tamit ne incha allah kon yépp yoo xam ne ci wàllu liggéey boobu ñi ngi ci ñi ngi koy fas yéene exercer ñi ngi am yaakaar incha allah seen jàppandal ak euh, waxtaan collaborer ci yi nga xam ne mën ne warees na cee mën a liggéey rawatina proposition yi nga xam ne yu am solo la te ñu gis ne lu dëppook Tuuba la incha allah ngeen taxawuñu ci baax maa ngi jéggalu bu baax tënk gi wasalaamaaleykum wa rahmatullah waaleykum salaam jërëjëf sëriñ Abdou Khadr euh, wax ji moom am na solo lool wax dëgg yàlla leeral itam ëppoon na bañ a def comme ni nga ko defee nii <coughs> ñu ngi la ciy santaat bu baax a baax xanaa di wax rek ne comme ni nga ko waxee ñëpp bàyyi xel ne complexe boobu nga xam ne mooy am Touba te ñun ñëpp ñu koy woowee université bi leeral nga li ci sëñ bi jublu mooy taxawal système éducatif boo xam ne si mën naa dem sax au delà de université bi ndax leeral nga ne daara dina fa am njàngum alxuraan njàngum formation professionnelle ci filière yi nga xam ne xamoon nañ ko waaye formation technique itam formation métier leeral nga bu a ne dina fa am. fàttali nga njëriñu liggéey ak ni ko sëñ bi doon taxawalee ci kër ga njaareem kenn ku ne am métier boo spécialisé wu loolu yaakaar naa lu am solo la loo xam ne lu mat a taxaw la mooy nit ku ne dafa war a am qualification boo xam ne war na ko am comme li nga wax ci université bi bu njëkkoon dong daara yi daan nañ am qualification bu ñu génnee waaye duñu am lu ko certifié ndax diplôme yi ngay wax nii nga xam mën nañ ko am ci université bi wala ñu am ko ci école yi sëñ Abdou Aziz wax sànq certifié ñoom qualification bi ñuy wax ne moom lañ am ndax diplôme du dara dudul présomption de connaissance dina mën a firndeel ne xam-xam bi ngay wax ne am nga ko kat am na luy lu koy matérialiser luy firndeel ne loolu am nga ko te bu boobaa dina leen mën a ubbil bunt yu bëree bëri ñu ngi la ciy santaat bu baax a baax di di wax rek ne fi ni waxtu wi dañoo dañoo tënk lool ndax 16 heures waroon na moo ci lañu waroon na ñaan te yaakaar naa fukki minute ak juróom moo ci des mbokk taalibe am nañ ko ci lu jëm ci présentation suñu Abdou Aziz bi mu doon def sànq ci 3FPT euh, di nekk loo xam ne suñu Xaadim Jaañ mii la ñuy jox parole bi xam naa mu recenser questions yi di wax ne sëriñ Yërim Aaw ak ko Koso Sey waa Kanzul Muhtadin ñu ngi fi teew ci jotaay bi ñu ngi leen di ziar di leen sant sëñ Ibrahima Gueye Lamp Fall télévision itam ñu ngi koy nuyu gis nañ ko ci jotaay bi léegi nii moom it di ku ànd ak ñun liggéey bi di ku jàpp ci liggéey bi bu baax a baax xam naa dañuy jox sëñ Xaadim mu jël question yi euh, yi nga xam ne public bi ñoom moom lañ doon laajte après ñu jébal kàddu gi Serigne Abdou Aziz Seck mu tontu ci balaa ñoo balaa ñoo wéyal liggéey bi. kon nag asalaamaaleykum wa rahmatulah mbooloo mi question yi daanaka moom bëri na wax dëgg fa yàlla nax day wane ni daal nit ñi li ñuy wax soxal na leen te bu ñu xoolee boo xool question yu bëri TOFPT la engagé. am na benn bu engagé aussi euh, université Touba def naa ci boobu laay commencé dafa am benn waay bu nekk fële bëggul ñu wax turam nee na lu tax euh, université Touba amul UFR santé wala paramédical. jërëjëf yaakaar naa bi may tàmbalee wax naa luy nuru ne ab tàmbale la ma wokk <laughs> damaa wax ne ba fii ñu def université bi sax boo seetloo dañ ne nañ jëlandi barab boobu. bu lii ñu sotti lii ñu bëgg bu sottee incha allah danañ jamaat fenn donc ab tàmbale la sëñ Muntaxa lim def ab tàmbale la parce que ku bëgg a def système éducatif faw nga waajal ginnaaw alxuraan dafay am daara daara daaray majalis am université bi am ñu ne université bi nag su ubbee nañ tënku ci jàngale ñetti ma matières yi wala boog filières yi nañ ci tënku buñ demee ba gis na nag lii baax na wala lii jàll na su boobaa ñu soog caa yokk yeneen ak yeneen ak yeneen incha bismillaahi rahmaani rahiim wassalaatu wassalaamu ala rasulillah sayidina muhammadin sallallahu taala alayhi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi wa xayri qadimihi assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ñoo ngi leen di nuyu di jiital ci nuyoo bu Cheikh Muhammadul Muntaqa ayyadahu llahu wa nasara ak mbooleem njabootuk Seexul Xadim gi yépp di fas yéene di yëkkati kàddu jëwriñ yi Tazawudu Subaan di Sëriñ Bubakar Jóob muy lu jafe waaye ñu jëm rekk ngir teg ko ci waxi sëriñ bi mu ni laa tafaalu sayan bi isnin su ko defee kàdd yi nag dafay jëm ci ñaari tomm ngir waxtu wi daf ñoo songu bi ci njëkk mooy sant ñi ñu seqal jataay bi bi ci njëkk di sëriñ Ibrahima Mbakke moom sëriñ Cheikh Faty Fall ak soxna Marème di rakk ci sëriñ Ahma Mbakke di suñu wóllëre naka noonu sëñ Xalil Mbakke ak mbooleem njabootu Cheikhul Xadim gi yëpp waaye di ci teg sëriñ Abdul Aziz Seck mi nga xamante ni moo fi teewal 3FPT doon def leeral bi am solo yi te lépp rek ngir bëgg nit ñi am ak ubbi ko ci wàllu àdduna waaye di beralu cant sëriñ Abdul Qadir Majalis xam ne moom suñu wóllëre bopp la waaye di kenn ci tasawru subaan ak leeral bi nga xamante ni def na ko ci turu université Cheikhul Khadim noonu mu ko waxee nag noonu la deme sëriñ bi ab complexe la ubbi ngir tàmbulee ko ngir yéene ji mu am ci xam-xam mu nekk loo xamante nii dafay matale ci fànn yëpp kon sëriñ jiir yi ñoom lay sant bu baax waaye di ci teg sëriñ Chouaib bi mi nga xamante nii moom moo njëkkee kàddoom di murit Académie su ko defee nag bis bii duñuy ñëw ci xam gi ndax danañ bàyyi ba ngoon ci bu ñuy def discours bi waaye dañuy def tënk bu gàtt rek ci ñetti kàddu yi fi jub yépp ci diggante Serigne bu Serigne Djily ak Serigne Ablaye Seck yépp Tazawudu Subaan moom mel na ni bi mu jógee 91 ba tey noonu ñu ko waxee noonu la tàmbali ab liggéeyam bi ci njëkk mooy ci jàngal ndaw li xamal ko xam-xam yooyu Serigne Souhaïbou doon wax li aju ci yi nga xamante ni moom la nit ki war a njëkk a xam bi mu ci jógee mu jàngal ko ay métier daara ji fexe ba na bépp ndaw boo xamante ni jàng wees na ci moom fexe ba na teg ko ci ay loxo yoo xamante ni danañ ko mën a jàngal métier waaye ci biir daara ji amaat na ñoo xamante ni ñoom dafa mel ni taxawaay boobu nga xamante ni ñi mel ni 3FPT e ñoo ko waroon a def am na ay maama tasawdu subaan yoo xamante ni ñoo ko def jël lenn ci membre daara ji di leen jàngal métier waaye naka noonu ñi nga xamante ni bi yàlla defee ñu jàng alquran ba noppi te xam ni njàngum àdduna mi mënta ñàkk ñu continuer seen xam-xam tey jii ki nga gis mu jiite kuréelu xasida gi Sëriñ Ali Gueye yàlla def na métier bi muy def jàng na ko ci nasaraan ba am na ci diplôme te loolu xam na ni jàng mënta ñàkk waaye jàng métier fexe ko certifié tamit mënta ñàkk kon loolu mel na ni tamit tasawul subaan liggéey na ci naka noonu tamit li nga xamante ni moom la 3FPT indi liñ leen ci njëkk a sante ci turu jëwriñ diggante bu yàgg la ak tasawul subaan du ñu tudd tur du ñu cité kenn waaye am na ay membre tasawul subaan yoo xamante ni trois fpt moom moo fay lépp lu aju seen formation loolu sëñ Ablaye ñoo ngi leen di sant ci turu jëwriñ di ñaan yàlla subhanahu wa taala liggéey boobu mu nekk ab continuité boo xamante ni du fi ndax gis nañ ni ci biir fanweeri at tasawdu subaan yi am na ci ay ndaw yoo xamante ni bi yàlla defee ñu jàng ba am seeni diplôme dañuy am yenn jafe-jafe ngir ku leen ci former bi ci njëkk mooy lu mel ni wàllu téer naka noonu wàllu menuiserie naka noonu wàllu mécanique ak mbooleem yi nga xamante ni ay métier la te nekk ci biir daara ji loolu nag liñ ciy sàkku duñu doon ñoo xamante ni ñëw di sàkku rek waaye yi sàkku mu doon benn partenariat boo xamante ni diggante trois fpt ak Tazawudu Chubaan loolu jàpp naa ne incha allahu taala suñ jógee fii rek partenariat boobu dinañ ko daal di sóobu ngir li nekk suñu kanam ñu mën ci am réussite totale loolu moom mooy sàkkuteef bi nga xamante ni ñoo ngi koy sàkku ci sëñ Ablaye su ko defee dañuy tënk foofu kàddu gi ngir liñ ci bëggoon wax bari na waaye di wax rek ni li ñu doon wax yëpp li tax daara ji mu ñor ko mu yitteel ko ndax métier dafa mënta ñàkk ndax sëriñ bi moo ni iltamisul xalaala kulla saa bi ak li akli yabdul huda wa taa maanaam fexe leen ba li ngeen di yëngutu maanaam mu nekk lu lew ndax li nit ki di jël di ko dugal ci biiram loolu dafa am solo ci jaamu yàlla te nit ki lu mu baax baax baax baax mën te ñàkk dem liggéey loolu moo tax kuy membre Tazawudu Chibane nga di ko gis ci jataay bi ak di nga ñàkk koo gis moo xam ci biir dëkk bi la moo xam ci bitim réew foo ko fekk mu ngi sàkk lu lew loolu nag teg ko ci njàngaleem Sëñ Tuubaa moom kon ñoo ngi sant ñëpp ci turu jëwriñ mbooloo mi di sant sëñ Nazir ak ñi ko àndul ñëpp wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu jërëjëf sëriñ May kon ñu gis ne agsi nañ ci jeexital jotaay bi ñuy santaat bu baax a baax mbooleem ñu ko àndaloon di wax rek ne mbooleem liñ ci wax jàpp naa ne li ci li ci li ci li ci gën a fës mooy xam-xam moom e, ñi doon intervenir leeral nañ ne lu mënta ñàkk la wax ne kenn ku ne looy def war ngaa fexe ba xam ko bu wér xam koo xam koo xam ne di nga ci am expertise ndax nga mën koo jëfe waaye itam xam-xam boobu nga am nga fexee dem ci kuréel yi nga xam ne ñoo fi ne ngir ñu mën koo certifié ba fépp foo taxaw ne am naa xam-xam ci bërëb ci domaine sàngam nga mën a wane kayit boo xam ne dina firndeel ni kat yow mii lii nga xam ni da koo dem gëstu ko jàng ko jàng wér loolu mooy mën a tax nga professionnel li ñu ci li ci teg rek mooy xam-xam boobu itam boo demee ba am ko war ngaa mën a jublu nag ci jëfe gi jëfe gi lu mënta ñàkk la lu am am solo la ñu ñu joxe ci misaal yu bari yoo xam ne ci njàngaleem sëñ bi lañ ko tibbee loolu yëpp ngir ñaaxaat mbokk taalibe yi ci ñu gën a farlu ci xam-xam muy xam-xamu diine ak xam-xamu àdduna sëriñ Cheikh Mbacke dafa am lu mu a wax suñu waajur wax ju am solo ba mu ko laajee foo toll ci njàng ba mu tontu ko dana ko waaw jàng moom bu tubaab bi ak bu arab bi ci yem boo ci xas ba fer ijji rek foo ci yem yaa fa yemale sa bopp yaakaar naa mooy wax ju am a am solo joo xam ne dina xiir mbokk taalibe yi kenn ku ne ci nga gën a sóobu ci but xam-xam ci domaine bu mu mën a doon nit ki xam ne dafa war a spécialisé wu ci benn domaine ne mankat lii mooy sama domaine dama ci fexe lépp luñ ci war a xam ma xam ko ca ngir mën koo jafe jàpp naa ne loolu lu am am solo la jafe gi itam comme ni ko suñ son bu waxee sëñ jiili ba itam rappelé ko mooy mbokk taalibe war naa fexe ba fenn fu ne fu mu nekk di fa yëngu ci lu mën a doon mu am jikkooy murit mu nekk koo xam ne dañuy jël exemple ci moom mu nekk royuwaay ca fa ne waaw loolu jàpp naa ne lu lu ama ama am solo la kon ñu ngi santaat bu baax a baax Serigne Sonia bu Diop mi nga xam ne moom bàyyi na yitteem yëpp ñëw ànd ak ñun jotaay bi wax dëgg yàlla defi intervention bu amam solo di santaat Serigne Abdou Khadir Ba moom nga xam ne wëllëre daara ji la wax dëgg yàlla ñëw na moom it def ci leeral yu am solo ci université Touba bi jàpp naa ne information yi mu joxe dina permettre kenn ku ne ci ñun. xamkat ëllëg bu université bi ubbee yow sa jëmm wala bu dee yow weesu na ci yow sa rak wala say doom di nga xam incha allah nan nga ci mën a yóbbu foofu di beral nag ak cant goo xam ne ci 3FPT la jëm waaye di ko teg ci loxo ci loxol Serigne Abdou Aziz Seck mi nga xam ne moo leen fi teewal ñu leen di santaat bu baax a baax a baax di wax rek ne lii rek moo am solo buñ tegee bu réew mi tegee wala nguur gi bu tegee lenn loo xam ne ngir askan wi la ñu fexe ba askan wi nga xam ne ci ñoom la jëm xam lu mu doon xam buñ ci bëggee jariñu fenn fan la la ñuy jaar jàpp naa ne lu am am solo la ñu ngi la ci santaat bu baax a baax sëñ Abdou Aziz ci disponi disponibilité bi waaye itam ci pastéef bi nga ci wane ak euh, ni démarche bi nga ci def vraiment professionnalisme bi nga ci wane itam ñu ngi ci santaat bu baax ak mboolem support yi nga xam ne indi nga ko fi ngir bu waxtaan wi jàllee itam même bu ko fekkee woon itam buñ ko joxee support yi dina xam lan mooy